الشيطان لما كان عنده xam ne yàlla defal na nga ak keneen moom ñu nga def sax ñu ci def ci ñu ëppantee ñu ngi ci def ñu yëpp ànd ndaje ñu ngi ci nga xam ne moom la ñuy jàngee parce que rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaar ci borom ci biir ak yëpp dañu ci biir ñu ci ci biir ak na ak alaana dañoo jaar ci biir ñu ñu lay ñu keneen ñu ngi tey mu ngi ci biir xam ne kon météo wax borom xam-xam yi wax ci li ci wax léegi am na ci yoo xam ne dañu jóg rek ngir màgg guddi gi ak njëriñ ñoom bu seetee ci wala maa wax ci gën a jege dañu def ko nag mu wër ngir jub ñu mën ko waxtu dafay ko gaaw a fàtte ngir gëstu ko wala ci li ci gën a jege ci ngëneeli taxaw di dimbal ji xam nga moo alaati il ولدت الله معطل مبكرا بسكة القرآن فإنه قد غفر بما يبدل البشرى ولا يلاقي قال الله علمهم ولتكمله كمن حضر يوم حمل وصبر ويوم بدر ونصر خير ومستقيم وحمل بعد تبدل ولدت لأن هم لأن تحرك لينا ولدت lu nekk ñu bëgg caa xam nax bu wér muy aaya waa wala adi daal am na ne mbir yooyu waaye ci jotaay bi ñu toog waxtaan parce que yéen yéen waxtaane loolu ko maaw yi suñ ko jëlee nga xam ne du bëri ay secret lu wér la alquran yonente bi salaa sallam nee na maa min xakim min fawqi alquran illa walaha zahru wa matnu la lépp ci biir alquran géej bu ci nekk gëneen géej nekk ca suufam bu ci nekk gëneen géej nekk ca suufam yooyu dañuy nekk ca moom ba mu ak ci lu amul dayo ci loolu ak ci sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu jëlee diine ji ndax suñu diine jëpp ñëpp mënuñu koo génnee ci alquran ndax alquran dañu mën a gisee junni ñaata rakkaa ak liy farata yi ak li si liy gis yi ngëneel yi ñun dañu war a xamal ne leen mu daal loo xam ne bi ak jëfam kon xam-xam buñ ko tëddalee fukki xaaj ñu benn ci jàngkat yi benn xaaj bi nga xam ne moom la ñu xamee ci mbind fa la ñuy yem mu des juróom-ñeenti xaaj daal waxtaan loolu soo la tax a dana am lépp muy wàllu ci daf cee laal ceeb waaye lii waxtaan yi moom la doon guddi gi. alhamdulilah sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci bu ko lay waxtaanee wala maa ngi bàyyi ñu ñoo ay jaar jaar am na ñoo xam ne dañu tàmbalee si juddoom ñoo xam dañu tàmbalee si ñu ji si juddoom ñii dañuy nekk dafawaat yi maam xare yi ñu xare ñii dañuy nekk beneen loolu nag la lu baax a xol nit ci pexe am nañu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam Ismaïl la waaye bu ñu ne tàmbalee ci Abdoulaye ñu ko jur ba ci Ismaïl la doon aduna ñu ci def lépp lu ci ëpp mooy da waaye fekk rek ndax wala maam dañ cee wóor yu bëri bari da ngay wax ne ku wér ak naan rek la nga wax Abdurahman dëkk Abdullah mooy lu leer waaye nag dafa wax de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kër Ismaïl kon kër Ibrahima loolu tax dafa wax boppam ba mu leer Ibrahima xam ngeen ne yonent la bu bokk ci juróom ñi gën a fort pour at yi Ibrahima moomu dañuy gis ci alquran suñu borom bi wax yonent bi ko tamit millata Ibrahima xanifam na nga topp yow Ibrahima diine bi nga xam ne mooy ak diine xanifi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee am sëriñ mën nga am na ñaari sëriñ Ibrahima moom ñu toppal yoon ak Seydina Jibril ñu koy indi lépp loo xam ne diine la teere la ci farat ci alquran ak ci hadis maa nga moom woon maa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci lañu tàmbalee laal tuuti ci gis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana àgg ci ak dundam Ismaila moom xam ne ne sëtu noox la noox sëtu aadama la ndox ci diggante bi nag loolu borom xam-xam yi dañ koy werante lu bari Ibrahima mu Ismaila Ismaila ci boppam Haajara mooy yaayam Haajara li ci leen yoon waxoon nañ bi Seydina Ibrahima jógee Palestine ñëw Misra ci yoon bi boo bi nga xam ne moo leen fekk dafa gis Seydina Saara mooy Saara moo ko am moo soxna yan yàlla Ibrahima Saara nekkoon doy kilomètre ndax rafetaay buur bi woo ko mu doon wax rek te bu fekkee laaj ñaan daal ne moom jigéen bi nga àndal kenn la ñaan daal ñoom dañ ko ne sama soxna la. ah xam ne woon dana ko nangu ci moom bu ne ko sama mbokk la sama sama maam la. wax dëgg yàlla ñu ne Seydina Ibrahima mu koy wax lu amul lu mu ñetti yoon te yëpp ci yàlla. daal waxtaan yeneen ñaari ci yëpp daal di ñoo bokk ñu xam ne nag buur bi dina def naa xaar ci kanamam. mu taala la ko jëlee ci moom la ko boo ko dëgg la dellu ci moom mu ci loo Ibrahima te loo dëgg nga ñaanal ma dafa wax mu jeex mel na melam mu ñaanal ko ndax mu dee baa ko newoon mu daal di fab aaya moom nga xam ne suñu moom ku jigéen la woon moom moo ko waxoon mu naan ko saatu soxna Seydina Ibrahima تعالى المكرر عن جرم إسماعيل إسماعيل يجب أن يفعل جرم إسحاق إسحاق هو saara nga xam ne nag Ismaila aadama jur na ko te Seydina Saara moo amoon njaboot xolam am naqar mu daal ne daal di ñu ne aadama moom nga xam ne man maa moomoon may ko Ibrahima danaa ko daggal ay mootoom ñu ngi loolu ne dina ko def mu toogee bu mu ko def xelam nekk ko mu xam ne moom daal lu ñu bëgg a def baaxul lu tàgg bakkan te bàkkaar bu mag te dañu koy itam ci waaye mu doon ci borom man ne léegi bàyyi na la waaye bu ñuy def ba li ñu misaloon bañ a xam ndax misal ba mooy fasante yàlla rek ba bañ ko def ak yenn bàkkaar la bu dal ne kon dana def ci yàlla loolu ñu def góor ñu naan di jublee ci góor ñu defal ko ko donc bënn ndox yi ngir ngir loolu bëri nañu dañu wax ne bënn ndox wax mooy bëri dañu wax ne it bëri dugub pexe boobu nga xam ne suñu la ci góor ñu sopp ci jigéen foofu la tàmbalee mu nekk xajoo xajana nga xam ne nag na ci nag mu nekk suñu borom ci boppam tabaraka wa taala jox ndigal Ibrahima ne ko génnee xaajaram lan jë waa gën moom ànd moom di ne nag wala nga di jóg génnee ko dëkk bi ñu dem di dem di dem di dem di dem di dem di la wàcc ko kooku

من الصابرون هذا رجع في إبراهيم القرآن المسلم تعالوا لخلينا ثم إبراهيم القوم ميرا ثم أصحاب البكرة يمون ثم أصحاب أجل أجل su siy toog foofu rek ba lu yaram def baax na gannaaw ndigal suñu borom la te aji dëng la xam nga te Ibrahima ne ko yàlla laa ci bàyyam xam naa yàlla moom doon lu ne danañ ci toog Ibrahima daal di dem moom ci ndigal borom mu ko wax ko bàyyi ak muutu tànnam mu toogee ba junni tamoon tànnam di jeex ndox mu jeex نرجع للون لذي سيد اسماعيل الدق ولمن البسير الحمسين تبجيرهم في يرضى يقدمون يرتفع لما تسينكو يبني وبمتينه في الدار وكا يمكن أن تبقى مرة يمكن سيد سيد اللي تعبرت اليوم يعني dégg juróom-ñaar yoo xam ne ñu dégg maanaam daal ay njaar di sax ñu tiit dañu ne daal daa ngi nekk maa ngi ndaw mu ñëwee fekk dinaa dugg alayhi salaam wàcc na dikk ci wetu bopp Ismaïla mu tëdd ndox daan dal moo jëm ngam ngam boobu Ismaïla lu ma ndox mi li nga xam ne ci sukkuram bi lay dalee begitu berdoa di rumah mengerjakan لا يأتي لهم لن تخص ما يلهون عنه ويتمون عنه وبعد لهم يوعى جمتان بعد كده الزاجية ومساء ومقوط شكرا من قرآن بلا شكرا من قرآن وخلينا نستغل أن نستغل أن نستغل أن نستغل أن نستغل أن نستغل أن نستغل أن نستغل dina doon jar boo xam ne du jeex mukk ba àdduna tukki waaye bu ñu ko gasee dafay fekk ne seer boo xam ne du jeex ba àdduna tukki ndax boobaa léegi du ñaari junni at ñetti junni at te boo ba léegi ndox maa nga ñu ne loolu kéemaan yàlla la ñu xamee ne noonu fekk na nag jiir benn jiir ci xeet yi jiir aar yi ñu ñuy wax jurhum waaye jurhum ñoom ñu ngi daroon ci jar boo xam ne soriwul lool foofu aajo la nekk ñun dañ daan yóbbu rek di jënd ñu ñu am di jënd si kaw bu yàggee ñu dellu seen dëkk ñu toll bu ñàkk gën ci seen picc yi naaw ñaar picc yi naaw rek xanaa picc ndox la ñu dem dañ nekk ndox mën fa am ñu ne ko xeet ñu gisee ba fi picc yi ñu gis aajo la toog ak picc naa leen def ndox mi yaa ngi ñëwoon moom. man tey moom. ñu ko waaw yow ndox mi. man ñu ko indi. daa mel ni yaakaar na si. te mu gisee suñu ndox. ñu ne ndox mi ne man la ko yàlla teewoo leen. ñu ne ko wax nga dëgg ndax lii mu la am ndox. te mu ci àll bi ñu bépp yaakaar na si suñu seen ndox. kon loolu yàlla na teewoo yaa ko moom waaye bu ma bëggoon. ñu dëgg yow. daan na métti li daan na amal ay ndimbal. te itam yaa moom ndox mi ndox baax na ci ñun. ndax dina booba ci biir xijaar ñaari biir aada du nekk muy biir bu mu xoolu ak biir façon bu ko dee ñoom dëkk ajal yasra moom ba Ismaila maak dugg da am ñaar ñu ne léegi daal ndax ñii nit ñi yàlla baaxee lañ nit ñi yàlla suturaal lañ nit ñi demee wacc daan ñàkk di wax ñu ci melaan gis naa ñu koy naaj soxna ndax mu toog daan koy naaj soxna si wax dana àllaat mu dox ci jiir ba mu jiw nag ñu naan Ismaïla soxna soxna di wax ne bu siy naa Ibrahima toole ba nga mu am ndigal bi jóge suñu borom ne ko demal nga seet Aajara ah, Ismaïla bu mu ñëwee kooku wax kat dafay Ismaïla moo wàcc béréb bi bu ñu taxawee ci buñu néeg bi bu ñëw moo ko laaj ko ana Ismaïla mu ne ko dafa rëbb mu ne daanu ñu ñaan ko ndox fekk ñaan ko ndox dara ñu ko ci ñaan mu daan ne ko bu ma Ismaïla ñëwee nee ko na topp buntu këram bi nga ko wàllu bi dal di dem bi Ismaïla ñëwee nga am na ñett ñu waralo mu ne kooku rek mooy sama baay loolu moo xam ne naa wàllu ci buntu kër bi yow dafa wax ne naa la wëcc maa ngi daal koy wëcc daan jëlaat keneen ba ne kooku ci biir ba nga jurul la bokk ba tey lii Ibrahima toog ne dox borom digalati ko fekk daan ñëw ak bu nekk di ñëw di ko seet di ko seet bu seet ajara ajara gaañu na ajara moo Ismaïl yi ñu ngi leen denc ci mbertam taaw bi ma foofu ñu wax maqaam Ibrahima ñoom ñaar ñëpp fa la ñu nekk Ismaïl ak ajara bi nga xam ne nag ajara mu ngi ko gaañu Ismaïl ak bu di Ibrahima bind séedee fekk saa ba beneen soxna ñu ngi moom ko may ko aajoo may ko ittee lan tax lépp mu fekk ko fa waaye nag dëgg bu ne dina fi waxtaan ko am na ñu ne ci borom xam-xam yi fa tànk ba tege woon daf caa naag mel ni tànk ba meloon loolu da yow ko xam ne bu ñu ñëwee di tabax ci kaaba gi daan ko wax ci léegi ci lañ ne teg nañ mooy ba mu ooy ba ko utilisoo Ibrahima dellu ba tey ah Ismaïla rek toog toog ba moom itam gënu ñaar yoo xam ngeen am na fukki doom ak ñaar nabi mooy doom di mag nabi yaayam mu waat mu uti mu waat muy doog jiw ba mu jur doon mu waat noonu ah sama mbokk jiw ba mu jur am na ku ñuy wax semaine daa moom mu bokk jiir xatuwa mooy ñaari jiir arab ñoo xam ne ñoom rek nekkoon naa ko ci jamono yi fi aayee bi ñëw ak Ismaïla ñoom ñaar bi ñu fekkee ba jëm jamono kenn ku ci nekk yaa ngi gis mbooloo nga nekkal seytaane doole leen ñu xeex bi ñu xeexee sama gàmmu mu baax rey ko mu baax na bi nga xam ne ne rey na sama gàmm moom moo jur soxna naabit mi nga xam ne moom la Ismaayil mooy doomu doomu man Ismaayil bi nga xam ne nag naabit moom su boppam dem na ba bàyyi Ismaayil ñëpp te waxoon na ko moom bi nga xam ne na ci trop taaw bi ah trop mu jox ndigal ci yàlla xam ne taaw bi Aadama ko njëkkoon a wax waaye dañuy wax ne ci la ma doon dee doom yi nga na ko rek ko yóbbu ko fa bi nga xam ne Ibrahima jox na ndigal moo jox doomam naadu naadu dina doon moo doomam ismail bi ibrahima ne isma ka ismaila ale kaaba bi ñuy àcci ak ale bi nga xam ne moom lañ jox addiye kaaba bi ak nit li nga xam ne nit ko nital di ko ko indi yëpp ñu nit ko amee itam ndox mi way aj aj tam di naan ak seen lekk ak seen lépp ak li nga xam ne moom lañ koy jox ci mu xaaral daal trop bu amee ko bi nga xam ne naaj bi dina mu baax moo xam ne moo jur euh, jàmbaar naaj bi moom dëkk mu daal di àll saabu ba tëjee woo ko moom naaj bi nga xam ne muuraat bi nga xam ne àll waaw li mu ngi bokk ci biir dama duuram ñi nga xam ne ñoom seen gisement yi ñoom xëccoo ñu ko ñoom ndax ñu ngi war a xëcc sa yaay ñu toog rek ñu jàpp ci jàmbur bëgguñu xëccoo ci béréb wax béréb bu sell bu yàlla tànn bëgguñu itam xulóo wala daal waaye jiwu kon daal di am kaaba gi ñun Makka nekk ñu mel ne ay bóor ane ko ane ko ane ko ane ko nga xam ne kenn xëccoo ko ñoom ak rey ne ko ki nga xam ne moo jiit woon dina xatloo te ñoom ñaar jiw ñoom rek ñoo ñëwoon ku ko jóge rek ci biir jur bi sa ko waral ko ci ane kaaba gi ane lépp nekk jur bi am lépp nekk ci sa loxo ñu ngi ci loolu nga xam ne ne ah dañuy ba waa jiwu si ma xaw ma bew beneen ay mbind ay mbind di toll nit ñi sàcc alkaaba bi di faral ay bakkan ci kooku dañoo tere ku faral dara wala ku fa tooñ ku fa ma tooñ ñu génn la benn benn jiwu arab boo xam ne banu Kutaa ak banu Kinaana ñoom ci tëdd Ismaël lañ bokk ñu jógee ca ba ñoom gis ne jeen boobu nga xam ne mu ngi am ci kaaba bi te waru faa am ñu daal di daal di daw dinu ñoom rey ñi daax ñi ñu dem waa ku daara ñoom ñu daal di findi foofu alayoon moom la cheikh alhaj malik di wax wa ku daara bëgg makka tam xoodan ñu daal di tax nit naa am ci umu ci من الله نعم هذا جوه بين الله لا تقنع من بعد نابت من أصحاب الكريم Sador ñi nga xam ne ñoo amee Sador bi mooy Jurhum nga xam ne Jurhum def na ni jenn boobu ba ñu leen génne waa Jurhum nag ku ci bokk ñu ngi ko wax am am na moom nga xam ne añaan bi mu añaan ndax génne bi ngeen di génne Sador bi nguur bi ñu nekkoon nekk ñu ñu ngi leen génne Màkka alal Sador bi mu dal di sàcc alal Sador bi dal di gas seen seen sam-sam dal di cay suul lépp suul ba mu ne suulee ñëpp dama ko takk seen bopp ba nga ne kenn xamoo ko fu mu nekk mu dal di génn dem waaye mu daa nekk sax xamuñu fan la teen sam-sam bi nekkoon xamut ni alal bi nga ne mooy alal bi kaaw bi te bari loolu ndax dañoo dañoo bind kaaw bi ñu li ko xaamee alal bi am na ay kilos yu wurus yoo xam dañ ko tëggoon def ko fa ak euh, ay gànnaay ay mbubu ak jaay ak lépp loo xam ne nit ñi aajowoon ko ñu ko def asie kaabu ko ko xool xel bu mag bi nga ne moom la xumbali tam bi nga xam ne dem nañu ba amul na ay mi indi baamu xelam ci Màkka ba mu demee ba tabax ko dugal ba bi nga xam ne ci biir tàmm boobu la ko dugal waa ko daa nag bi ñu saxee ci loolu ñoo dem ba yàgg fa ah comme tey jii ñu nga xam ne comme tey moom ci sëñ Ismaïl la bokk waaye moom mooy maam yoroon ci biir programme bi nga xam ne moom la ñu ñu maanaam dem ba ñu àgg ci euh, Adnaan ci moom la ñuy jaar moom comme tey moom wax dëgg ñu ci laaj na bi nga xam ne ñoom moom ci mu ngi bokk ci sëti Haajara mu dal di daje nga xam ne mooy Xulay Xulay ci biir Xuzaa dafa dañ koy daanaka mu àgg ci Xulay am na ci pour que ñu ci mu ngi ku tedd di mu tey nit ku yaatu te yàlla wërsëgal ko mu doy loo xam ne moom maa ngi ko doomam bu ñu ko maa ngi doomam ba noppi nag bi xale yi deewee pour que daal di jëlaat nag kaaw bi nga xam ne comme léegi alal kaaw bi jëli si waat ci biir maanaam ñi nga xam ne ci projet bi. voilà ñoo ku daa maa daal yamuuna ilaa an jaa xuraylan aqba karabi xurayl moom moo jox Xuseyn nguuru Màkka Xuseyn mu village bi comme moom amee kaaba gi ba nga xam ne waa Xuraysh ñoom dem nañu ba ñu jubóon ko seen biir dañ ko doon xeex ñu dem ñu jubóore ñu nekk ànd delloo nekk ci benn nekk ci benn nekk ci benn ba ñuy ak ci ci maa ngi ci ci yàlla bi mu di Abdul Mutalib xam nga ñu waxee woon ci Adnaan doom nga xam ne am naa amoon na wala ñu ko xaaroo am na ñu ci xam ne dañoo dem yaram dafa naan ah taxtaan ñaari euh, nit ñi nga xam ne ñoom lañ ñu arab yi gannaaw bu ci lu nga xam mooy gannaaw bu ndax xam ne arab yi ñetti xeet lañu al arabul baida wal arabul aida wal arabul mutaalla al arabul baida mooy arab yi nga xam ne ñu seen arab woon wala ñu jaay ba jeex al arabul mutaalla mooy sëñ Ismaïl yi nga xam ne Ismaïl moom du woon arab yaayam du arab baayam du arab ndax bi nga xam ne ne Ibrahima ñëw Abdul Muttalib ak Muttalib ñoo bokk benn baay Abdul Muttalib ci boppam bi nga xamee ne war naa lu borom war na koo kennelal sax sam-sam mu yor kaaba gi deel bi nga xam ne maama Ousseynou loolu la yoroon mel na mu yoroon gis naa Ali moo ko nettali dafa benn mu ñëw tëdd ci wetu kaaba gi di nelaw mu nelaw mu gént gis benn jëm bu ñëw ba àgg ci moom ne ko xeex ba tay ba maanaam dax na tay ba mu ne ko maa tay ba ana lan mooy tay ba mu loolu daal ñëpp di jëf ko ñaan ci daal dem ba ci ëllëg mu tudd nelaw bu mu dëggoon waa ji mu wati loola di wati xamuñ ci xamuñ ko doon ne ko extan barra ka mu ne ko xamna barra ci ana mooy barra loolu daal ñu nekk mu daal di yeewu ci leen kër ci gannaaw ëllëg mu jël jëf te di ko tëddoon di sant loola bu ci baax ne ko extan magmumata daanam mag al magmuna mu ne ko man magmuna ana lan mooy magmuna loolu ne nekk di ko ñu gën bu fekkee ma gën ngeen te def tam te gën comme yow di tax lool di suñu wax ihtar zamzam mu ne ko wama zamzam mu ne ko laa tam jub wala ci jam laa tam jub abada wala ci jam ndax in hadid al adam وهو هي بين الصخر والدم إذا نقرت التراب لك زمزم نقل المعلم بجيح نوك نوك تكلم وغاني ba dafay xam bu nekk diggante ñaari xërëm yi xam ne benn moom lañ tuddee isaaxa bi nga xam ne bu góor bu jigéen lañu dana am waxtu yoo xam ne dañu woon ñaari nit dañu woon ku bëri ku jigéen ñu def lu mu noonu seetaal ko suñu borom alal yéen ak dëkk waaye loolu ay wax la ci wax ci ulama am ni waaye isaaxa ak ñaari ñu ci mën a doon ñaari xërëm lañ yoo xam ne si nag bëri nañ jàng nañ am naa neex nañ ñu ñëwaat nañ ci diggante ñaari borom yooyu mu ne kon boo xëyee nga di diggante isaaf la fi diggante si biir ak deret bi dafa fekk benn baaxoon boo xam ne benn baax bi dafa weex muy cox foofu muy cox foofu lay gan foofu lay kontaan nekk alxuraan wax na dafay ulama yi wax nañ ci léegi nag mooy baax boo xam ne bu naawee ñaari laax yi koy weex lépp ñu ne déedéet mooy baax boo xam ne benn laaf moo weer ñu ne déedéet mooy baax boo xam ne benn laaf dafa weer ñu ne déedéet benn tànk bi rek moo weer ay wax mbaleen ci am bu ak bu tënku du jaaxle nga xam ne am loolu daal amul sikk te muy def nga di yow fekk ba amul lu jëm doom ñu xaar nga ñu tàmbali di gat bu gat bu xëyee rek xool na diggante si ak deret bi diggante ñaari xel mu naan mu jub baaxam bi di con nga di ñu tàmbale bu baax di joxe jar di jar di jar nga xam ne muy jar ñeent waa ko ñu romb ko di ko di ko di jar fii ñu naan dañu naan jar xam naa ko ñu ne baax damay sant ba pare fii dara nekk fii mu defee nag àddi ci kii bi mu woon teen bi mu daal di tàmbale ci kaw ñu tàmbalee président daal di tàmbale nag suñu dégg ci tàmbale ñu ngi woon ci diine Ibrahima parce que li ci ëpp première bi ba xam ci dara di jaamal waaye ba tey am na yu desoon ñu mu ci daal sax ak buñ koy def def ba jot ñaari ci mbuus yi jot jant yi jot mbir kaw yi waa Quraysh nag ne ko nag waaw waaye seen bi Ismaïla ko moom Ismaïla sunu maam la dund kon nag donc moom yow doon amuñ ci xaq mu ne amuñ ci xaq mu ne ko xantaay amuñ ci xaq nag te ndox ma nag da nga jox ma xaq mu ne waaw l'État comme ñun yoo xam ne nii dañu li ñuy àtte ñu naan léegi gis nañ ne am na benn kaayin boo xam ne bu paree rek dana leen àtte dëgg ñu ne toog bu nekk ñu ne ñu wax Cham wala fii ñu jóge Makka ak crime sax ñoom ñëpp di def ndax ku leen àtte su moom teen bi ndax amuñu ci xaq wala ñu amul xaq bu ñu demee ci biir àll bi xijaat ñu tàngaloon ci ñu seen ndox jeex amatuñu lu ñu naan amatuñu lu ñu leer amatuñu ñu ne seen ndox ñi amul ndox bu ñu ñaanee ñu am ndox ñu leen ñu leen joxe su ndox dañuy naan ñu leen fii àll la ndox amu fi te comme ñun ñëpp a dee ñu dem ba mu yàgg léeg-léeg ak buñ dal ak buñ dal xam nañ ne du ma am ndox mukk fii ba ba ñuy dee bu ëllëgaat yi lay duñ ci am ci bérébu ndox gën ko dund waxal suñu ndox moo gën di jox dafa saaroo leen ñu mu toogee rek ñu toog ba mu yàgg ñu ngi leen léegi ku ci ñàkk na gas bàmmeelam bu tasee bàmmeelam sëddi bu mu demee rek ñu ñëw war naa ko ndax rab yi duñ dooleel bu ko defee ci ñu jëlee xëy na kenn rek ku sant moo gën ñëpp sant nga di d'accord ci loolu lu nga xam ne ñu ngi dàq di dàq di dàq ñu yàqu ah faatu ñu dem ci ñu ñëpp ndox benn ngeen nga di saabar tàmbali ñaan ndox daan nga di ñu ñoom ci ndox mi ñoom ñëpp di la sax naan ba naan ñëw fi suñu borom dalal la ci ndox loolu tegtal la ci ne yaa moom Zamzam bi daal di ko mu dellu bàyyi ko xam naa dañu comme ko defee ñu ne wax léegi alal bi ci nga xam ne saa bi dañ ko daan def ak jéem yaa moom Zamzam waaye dañ koy séddoo ñu leen dafay fan nan waa nga leen même ba dem juróom benn cër ñaari ci lii saa ba lekk moom ñaari ci lii maa ko moom ñaari ci lii ci des ñu bokk ñu dem xëy na xëy bi ci gën a mag mooy mën di nekk ci biir kaaba bi ca kanam bu ñu demee kenn ku nekk am nga bant bu ñu war léeg-léeg bant bi fu mu daal ci cër a nga jël ko waaw ah, bu ñu a daal di daal ci teewal yi ruus ya ko jaay ci jox leen bu kaw yi waaye mu daal di tëggaat teewal ruus yi ak jaay ya defare شيء كان المفروض امسكه من في البلد ثم اسلام في ولد مسلم ايضا فما يتقدر الإسلام بنحن هنا سيدنا الامام عبد المطلب بعد الشيخ بن محمد بنوتا سيم دي بدر فهمي وقريش بنون اكل يالا وقريش دان نمو مom ndax loolu dara wal ko lu dafa am da ko bu bari mom ben don don am moy xari mu dal ni ko ko ko borom bu ma ne fukki yoon danaa sam danaa rey fukkeel ba ko asaka bu ko defee nga xam ne sama jaaraate bi daal di ñaan nag suñu borom leen di bu nak tak dal ban ñu bu mu tan dal ci abdullah ko ray ni mu ñu ko abdullah ñu wara ray da ngeen di da ngeen ci gën ci ci ci gën ñëw ngeen gën tan ci bu mu ko ban bu dal ci abdullah ñu ray ngeen wax ci gën bu ngeen dal wote dal ci abdullah ngeen wax ci ini ba mu dal ci bëre bi ñu ko def ñu dal ci abdullah ini ci abdullah dama xam abdoulaye moom mooy nga xam ne moo daa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru nga mu la woon mooy weeru gàmm ci bu ko ñaar ci la gane adduna alayhi salaatu wa salaam ci waxtu bu jëm juddu bi la maa ngi wax ni ñu bari bari bari mu ne ñi nga xam ne ay ay tegtal xam ne gis nañ ko ci kaw suuf ak tegtal yoo xam ne am ci asamaan ak malaayika yi ñu ñu waajale woon guddi boobu ak am ñi nga xam ne mbooloo bi leen ñu ngi gis ci ay kéemaan ak tawteer bu ñu ko ëndee ba guddi bi nga xam ne ci la leen di sallallahu alayhi wa sallam di tane ak ñoom loolu nag ñu yàgg waxtaan waxtaan nañ ko waxtaan yi loolu loolu yàgg nañ leen ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne bu mu gane àdduna dafa gis kat léppam soppi lépp loo xam ne waa ngi ko defal lii bu gaañ adduna na ak xetaayam ak léppam mbëraayam bu ñu doon dem xëram yi newoon ci kaw suuf ñu leen jaam safara si nga xam ne waa Faris banu Faris mooy Iran dañu ko ay junni ak lu ko la fay ñu di ko xam ne suñu toll di ko jaamu ko ndox mi itam tàng bay bax lépp li daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ wax ñu waram kitra dafa daal di faax leer bu mag bi nga xam ne bu bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba àggale fàtte adduna yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu dikkee daal ne ñu ñu Usmaan bi nga xam ne kenn mu amul benn mu ko war a defal lépp a mat muy mat lépp loo xam ne xale dana ko mat ci at mu ko mat ci weer nga xam ne ay at la am na tuuti tàmbali di wax di wax wax bu gën a fenn jox dox mu gën a rafet bu gënee ci bërëb moom ñu fa nga xam ne ñu ngi mun dëkk boobu li am ñu ngi nekk la ñu bëgg nekk ci dëkk boobu bu tuddee dana nam dëkk boobu te xelam ci kaw rek lay nekk nga ne bu nga xam ne ku amul woon ci dëkk koo xam ne amuloo dara dugg li nga am lépp ci dëkk boobu la nekk sa ndey ak sa bàyyi ak say xarit ak sa alal ak sa lépp loo xam ak lépp loolu bu muy ci boo liggéey ci dëkk ba ba dëkk fa ni ngay mën ne dëkk ba am ni nga ko bëgg a delloo loolu la moo ñu am ci xol yan ci salaay sama ci suñu borom nan am nañu koo xam ne ak bëgg ko bëgg koo xam ne dana ko mën a ci wax xañee nit ñi ñu daan def li nga xam ne moom lañ ci biir mu ci biir dugg xëyoo xam ne loolu kenn xamul li xëyoo ñu daan dem ci raar xeex daan ñu baax ñu bu ñu gën bu demee nekk fa ak yow ñu bënd ba mu jeex am na jamono yàgg soo ko déglu si bu ñu leen dem bu soobee di jaxasoo nit ñi. nit ñi dajaloo ñu sox di ko dem wax nañ ne ñaar yoon ñu bëggoon a dem seetaan bi loolu yëpp bu ci nekk suñu borom dafa xiir nelaw ci kawam ba nga xam ne dafa nelaw ba jant bi yàq yéen. ñu bañ a dem ci loolu ndax suñu borom seelal ko rek seel boo xam ne euh, ëppale na ko loolu. ak ñenn bi nga xam ne. nekk na ci xalaat xiraa nan la ko doon jaamoo nan la ko doon jullee rek doon na ko julli ñu ko doon tuddee yàlla rek doon na ko tudd ba tey doomu aadama yi xamuñu loolu bokk na ci liñ ci xam daal ak tafakkur maanaam mooy méditation xalaat yàlla bu ko tàkk parce que ci loolu xam ngeen ne doomu aadama ñu dox diggante ak yàlla bari na réew adduna bi ak li fi nekk ñu muy bëgg ñu muy xalaat ñu muy xëccoo ñu muy bëgg ñu muy gis ñu muy tàkku ak ñu muy jaxasoon nga xam ne bu ñu gisee nit di dugal ko muy di gis nit ñi di xalaat ci dara di tudd yàlla suñu toll ñaan itam bari moom kiiraay boo xam ne day yées di gën a nit ak boromam day tax nga yàlla daaw dugg wax bi daal maa ngi leen yéere di gën a xol nit ak yàlla daa daal yàlla dugg ci xam yàlla ku xam borom bi kon kon danaa wax bi daal jam ak jaxasoo nit ñi day dox diggante nit ak yàlla te yonent bi doo xarit yàlla boo xam ne suñu borom bëgg na ko ba mu gën a ko lépp lu mu sàkk ndax lépp lu mu sàkk moom moo tax ba mu gën bëgg na borom ba xam si dara ñu xam ne nit ñi dañ koy santal loolu moo waral mu daan génn di dugg ci xunt boobu mu nekkee ci xunt boobu du gis nit du dégg li nit ñi wax du dégg lu yëngu mu jox borom ñëpp xool bépp yàlla du xalaat bi dul yàlla xelam bi dul yàlla loolu nga xam ne ci la yónnee bi war a tàmbali ci ñu ko ñaan bi alayhi salaatu wasalaam ñaan bi dañu ko xool ñu ñaan ci ay melow la ñu ne yàq bu toll waaye bu fekkee ne sàmm bi leew lay mut bi ak leewu la dina am na ci nawet bi ñu moom parce que moom ñu koy toog nee na koo mboq nekk ko ba ma ne ci kenn mu ma mun na defaraat jàngal xam ngeen nit boobu ndax yàlla dafa am lu gën ci moom moo tax lu nekk ci kaw suuf di dund ci kaw suuf yi ci kaw suuf di ko dundal mën na tàggat ci suuf te ñun ñëpp yi ci gën a bari ay yaay la di ko jël borom bu ko gisee daañu xam yàlla dëgg bu ñuy jaar nit ci yoon yàlla wala ñu ko àggal ci yàlla daañu ko gis naa gis naa bi doo xam ne dañu ko xiifal maal ko dañu boole ko coor di ko liggéeyoo wala ñu ko ci yàlla ci yàlla du bal du sonne loolu nga xam ne lii dem ci ak liggéey lu bokk ci dund kaw suuf nga xam ne bu wàññi ko lool diggante nit ki ak almaru yàlla kenn ko xaalu moo tax yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ak li muy foor foor ci yàlla ak li xam-xam di bari bari ak li mu jege jege boromam xaw ko njëkk ko xëjal ko ba mu defee ne lee ci tegu mbir mu soog a mën a dugg xam nit ki dalay gis dëgg kéemaan yàlla yi dana gis dëgg nit nga kumpa dana dee dee jàll nag ñu war bu deewee dana dugg dugg mooy li ko dokkoon ci suuf li ko dokkoon ci adduna dañ na te mooy jëmm dañ na mu waree ko nekk jëmm ji ak li mu aaroo ak li mu jëfandikoo yëpp am na kiiraay yu bari di ko yéen diggante yàlla di ko yéen diggante jinne yi ñi ko yàlla bindee ñu ngi ñu mu mën ba mu mën a xalaat di xam di xelal li wóorul di xam lu nekk ci waat moo tax di gis jinne faw mu am lu dégg ci ndigal maanaam dara mu taat wala am lu màgg ci moom wala am lu mu xam ne wax bu nekk la soxla te ci ndigal bu nga xam ne moom la ko yàlla bindee woon nga xam ne dafa jinne ba du mu lorante loolu bu amee fu am benn fois loolu la loolu jinne jaar ci la ndox mën a jógee ci la xam-xam wat mën a jógee ci la ñëpp mu nag bi nga xam ne mooy bunt bi diggante yàlla ak jaam bi bunt boobu moom dane ndax yaram ak ruu dañoo koy diggéeyoo lii dundal yaram bu ko dimbali mooy sax ruu lii dimbali ruu te mooy woor di xiif di jaam yàlla di jaam ak nit ñi mooy waxtaan yaram waaye muy may ruu kàttan moo tax leeram tuuti xaw na comme fitne doon nga xam ne mooy dal jëmm ji ba mu toll ci diggante yi nga bañ yëpp xam-xam boobu moo réew ñu ngeen tax ñaan yoon yoon sax bu ñu ci doon bu ñu jot wàññu danaa ci diggante boo xam ne daanaka dañ xam dañ xam diggante xam boobu mooy dindi meloo doomu aadama yi nga xam ne mooy tax bu mën a jaxasoo malaayika yi mën a jëfee moom bi nga xam ne nag si nawet bi wax na ko ba mu xëy ba mu ne dee di tegu mu ne ko yàq ne ko xeqaa mu ne ko maa am na ba taay tuut mënuma jàng mënuma jàng mu jàng ko jàppaat ndox nag nekk doon nekk nekk ba mu ne dee di tegu mu ne ko yàq ne ko xeqaa mu ne maa am na ba taay ba mu ñetteel bi lay toog nag sant bi ñëw am nañ ne sant lu am am solo na am ñu waxtaan ko ci biir mbir yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci affaire nga xam ne xam boo mu ne ci ñaar bi lal bi tarik xam ak ñaar bi ko ñu xaar xaar ko ñu taal ñu xaar sax na war bu ko la karam alladhi allah bi xam am na insa ma la am dal bi ñu ko ñu naaw ne ko am ta rasul rabbi yow yaay yoon sa borom ci nit ñi yoon bi sa dama dal ci fu mu fu mu xool gis jibril fu mu xool gis jibril mu gis jibril ñaari laa ci mu ko wax mu ba ci xiir lan ci gannaawam mu daal di kii di naaw di naaw ñu jëm ci ci kër gi daal di ne tànn leen ma tànn leen ma tànn leen ma te it naa Xadija tànn ko tànn ko ba tey mu toll nga xam ne laata laata na ko woon bu ko mën bu ko mën bu ko mën loolu yëpp kon dindi yëngal bi nga xam ne moo yëngu doomu aadama nit ñi yëpp nit ñi ñu am am mu dañu am beneen nit boo ñu boo xam ne moo lay booleel yàlla moo lay jaxase yàlla moo lay war yàlla ngir yëg ñi benn yëg boobu ñoom malaaka mi lakkal ko lakkal ko fu mu toll di ko gis jaaxle ba tiit ba mu gis te gis naa Xadija ne ko su ñu ko mënu ko yëgal dana gis loolu ko ñëw na mu daal di diw ñu musóoram ba def bokk ñaan mu ko yaa ngoy fekk ba koñu musóor sool sama kanam mu toog kanamam mu ne ko ndax yaa ko mu ne ko waaw mu ne ko ñëw sama kanam mu ci gannaaw ndax yaa ko mu ne ko waaw ñëw ci mbedd war ñëw ci càmmoñ ñu mu ne ko waaw bi nga xam ne téye ko jëfandikoo loolu kon du du jinni la malaaka la mooy ñaan mu ñu ñëwoon Moussa ñu ko euh, lu ma ñu ñu ko sëñ bi ñu ko waxee bu ñu waxee ñu nga déglu te dégg ko wax ak moom ndax man la am naa yaakaar ci la nekk yonentu jaam ñi ci jamono ji ñu nekk xam nga booba yow ak nasaraan yi xam ne yëpp jàngoo amoon nañu ay téere jàngoo nañu mel ne bi ak jàng ñu ba xamoon lay toog ñoom ñu toogoon ci ñoom la génn moo tax bi ñu génn ci ñoom añaan jàpp leen ñu wan ko dañ ko dëgg loo bentoon na sallallahu alayhi wa sallam nag jurul du wàcc ba indi wax ngërëm du toog ay weer yu bari gisul dugg mu am njàqare am naqar xelam damoon sax dem ci montagne bi gën a kawe yéeg daal di jiital mu ለአልመቀም ስለ ወብዱሐ ወሊም ዳከለ ማውዳ አከለም ቆማከለ ይወል እንደውም ሰፈን ለምቱ አክመ ለምት ሁት ለዋን ወጥይት እናቀራለ ይይት መጥይተለ ይሁን ሙአዝ ከደረጀ ይሰራ እንደ ኸም ሞን ተከን ቦራም ሰሮ خمنا نقول كلام لنا دلوقتي ومن وقتها بطل وقتها من البلد لمدة وقت كل يوم fitnaal nañ xam nga ñu leen nga xam ne diituñu adduna diital leen ñoo la ko tëw nga xam nit ñi moom ñoo la ciy jiitu ndax borom alal yi seen alal dana tax bu ñu mënoo bàyyi alal yi di topp kenn xamuñu dana xamuñu dana leen laaj suñu alal boobu seen ñi seen ñi tam la tax leer bi du gaaw a dugg seen xol adduna na ba tax ci am na lu dana dox seen diggante ak doxal leen ñu ñàkk ñi nga xam ne daanaka seen xol ci na dara ñu ci ñooñu gën a wàcc ñooy njëkk a wuyu yonante yi ñun ci alquran taaloo am ñu la waxtu ak lër dëgg la bu ko waxee no taaloo maa ñu ma taan yi amul ñu ci tabu ñu ila ala rabbi rasul ba tey pour mu waxee ñu mel noonu ñoo njëkk a wuyu loolu ñu tuddee ak argëm na waaw ñu borom alal ñu tuddee way tax way tax yi loolu du ñu ñàkk nañ ko ba tey ñaare bérébu sikar boolem yaakaar nañ ci bakk ñoom lay doon bérébu xam-xam boolem ñi ci ñoom lay doon bérébu texe boolem ñi ci ñoom lay doon texe ñu ne ñoom da ngay texe ndax ñoom yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam waxoon ne képp ku judduwaat doo dund si dund wala ko dund nga ko judduwaat mooy lan mooy nga ci li nga amoon ñëpp sa alal jël sa ndey sa baay sa lépp di yow jur ni kese nga ba yëngu judduwaat mu soog a ñëw ci àdduna rek nag di sa alal di sa lépp mu ne ko defut doo dugg ci groupement boobu yi loolu moo tax ñu ko toog naan ñu xaw ñu judduwaat gannaaw ba ñu waxee ñetti dee ñu xam nit ki balay àgg ci yàlla dana ko dee xaw ñu judduwaat ba leen judd judduwaat boobu ñu judduwaat nag ci lay mën a doon ne aarifoo bi leer yi ndax moo tax ñu judduwaat judd bu ñu juddoo ba bokkal ñoom jubbu ñi seen mbokk ba leen doon ñu mën a ñu leen doone ñu gën di xam-xam ak jege yàlla ak ragal yàlla loolu bi sallallahu alayhi wa ñu ko mu itam xëy waa ko ci ci moom ko ñu ak moom ñu def na xam ne ba mu ne ndax jëm tax mu jaar ndax ba waxtaan ba mu ne dafa bëgg a seetlu daf ñu wax Taarif ndax ñu ne Taarif bi Taarif am nañu wala ñu am naqar yoo xam ne naqar la bu tàng ay bët ak ci xub rekk ci nekk mu dox ci ba àgg Taarif ngir yaakaar ni bu ko ñun ñoo di tànn waa Maaka mu demee nga xam ne ñoom borom rajo yi ñu ko ñu yoon moom xamal nañ ne naka yi suñu borom la yónni maa yónni pour xeet yi dama bëgg ngeen ci dellu ci yàlla te topp na moom ne ni ñu jaamu waaye ñun ñoo moom loolu ci saa dara waaye ci saa muy saa quoi loolu ñun ñoo waa réew mi xamuñu ko bu ñu ko defee rek dañ ci loolu ci saa dara bu ñu nekkee xam ne gis nga dara mu ne waaw waaw mais koo xam ne nii gis nga dara bi koo xam ne mu ne ko yàlla xam ne man yàlla ci laa mu ne ah waaw loolu yeneen pour yàlla xam ko mu daal di tàmbali di fóon loxo yàlla di fóon tànk yi di ko ndox bi di ko ñëw yàlla dina ko foo dëkk mu ne ko man nii laa dëkk mu ne ko ah dëkku Yunus yàlla bu baax boobu mu ne ko ah ñu ma xamal Yunus mu ne ko ah Yunus sama mbokk la maa ngi daan ak moom ma daata daal di daan toog moom mu woon yonent bi doy bi mu woon ko Sheba ak Otuda tamit mu wax morom ne ko waaye waaye yàq na sa def sa xalaat nekk yaa xalaat mboq bi nekk wala nga suñu wax gis nga li ñu doon tóole ñu ñu xoolee yow ki nga xam ne sa diine ji doon diineem yow nga jàng mu jàng dara mu nax na loo na nga dem nga dem nga génn suñu tool nga nga di di dem xam nga ci ñu mu rek ci gi ak naqar ñu ko ñu teg ak xaan-xaan ñu ko xaan génn deretam yàlla suñu dañu am nañ waa Résil dañoo ba dawa dawa xaatu ba daw nañ ci aw xur kenn du ko koy kenn ko jox yàq kenn ko jox naan ni daanaka ñoo xam ne dañu leen nax ci am ndox ci ñaar leen yóbbu leen ci leen dañu tànn ci leen dañu sax rek lépp yoo xam ne mbugal ñu naan ah ba ay baax la ci leen lépp yoo xam ne mbugal ñu leen mbugal daara leen am na yoo xam ne jéeral ci salaam sama da leen mbugal may leen mbugal ñu dem gaadaa ñu dem xalaat ko cëkki ñàkk ba am gannaaw bi ñu gën si waat dañu nga xamee ne waa Madiina su mën a war a nga xam dañu daan ñëw fa ak Makka di jaar ci saaba bi